من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي مثال يا مليك بلا إسان بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كردي تدار يا الله تكن ليا من ويوب نفسي بتين منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكن ليا من ويوب نفسي بتين منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي am na fi daarayni yaa allah lis abi istiraayka ma xabitu sirran ilal jamaati yaa allah anta al azizu la fi aqib isati isan yuqal li التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي اللي اخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اللي اخترت يا الله كليتني كلاسي كبر بلا كلاف يا متكبر تلك يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والتذي والرلوان يا amuñu lu dul xasaay jàpp gi ngi leen jàpp ak foog gi ngi leen foog ak teraanga gi ngi leen defal amuñu loolu xasaay moo tax mu la ko barke Xaadimu ah, euh, wax na lu bare bare bare bare bëri ci sa sa taxawaay ak liggéey bi ngay liggéey lislam ak taxaw bi ngay taxaw jàmm yàlla ci seen i yooyu saay ak yooyu baatin kon yàlla yàlla taxaw yàlla na sëñ Tuubaa dolli say teraanga barke borom daal xudus yaa baari al xut لنا فدونا سن وقل لي الأجر للجماعة يا الله أتى المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو للمكر يا الله خذت لي كل سن بن قد أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خاتلي رديئك دعي بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا ذاك مسألتي فلا كسك ريايا وأبو حلام لغوت أزمان لج yaa man loo umuure mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala noo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha al di leen siyaara di am mbégte lool ci tawféexal gi nu suñu borom tawféexal defal nu ndimbal ba nu teewe jataay bii kooku Cheikh Moustapha Al Karim nee na mi ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax a baax di bëgg itam ci bi mu ñëwee ni mu fekkee jataay bi wax dëgg nu kawe njort la te itam nu yaakaaru la lool ndax dañuy wax ne waa inda dikru saalihin tansilu rahma te loolu rek mooy li am ci jataay bi fépp fu ñu tudd gaa baax ya suñu borom dafay wàcc yërmandam te kenn ku ne xam ne ne wa rahmati wasiat kulla sayin te yërmande yàlla ku ne moom lay ñaan te biñ ñëwee li njëkk a fekk rek mooy kuy waxtaane ku tedd ki xaadimu rasul te bam ci paree lam ci njëkk a tegaat mooy baabul muridin kon loolu dal na xel lool ñu ngi ñaan lépp lu suñu borom di séddale ci ku ne ni ku ne ni def mu séddale ko yàlla nun ko séddal nun ñëpp ci daraje ku tedd ki xaadimu rasul waaye Cheikh Moustapha al Karim nee na mi ngi sant bu baax a baax a baax ku tedd kii nga xam ne moom moo ko tudde bis bi wax dëgg yàlla du lu ndaw waaye cant lañ am ñu ngi koy teg ci loxoom di ko seereel cant gi tey xam xamle ne kii nu àndal di Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moom la ñu tuddee euh, bis bi daarul xuduus la bàyyi ko ci loxoy Cheikh Ahmadul ki ñu xoolee Cheikh Moustapha al Karim yi tey ci ay loxoom la bàyyi ko bàyyi ko wut fu ndaw dëkku Touba bi bañ ko sancee lañ fi njëkk a def moom lañ ko dénk muy bayti kenn ku ne xam na ne fa mu jugee fu ndaw ñi muy àndal itam ba agsi jataay bi kenn du ci ndaw ndax ci biir jataay bi njabootu ku tedd xaadim rasul ñoo ko fees dell suñu Abo Mbàkke moom suñu Amsa moom Cheikh Abdoul Ahad moom ku tedd xaadim rasul moo ne ci wetam sëriñ Ahmadou Mbàkke moom suñ Baara moom suñ Mahmadan Xariloo moom Cheikh Mahamadul Moustapha moom ku tedd xaadim rasul ànd moom ci jataay bi sëriñ Fallou Mbàkke moom suñ Mbàkke moom Cheikh Mahamadul Fadal Mbàkke moom ku tedd xaadim rasul mi ngi ci jataay bi diggante Mbàkke ak Ndousoubé la Cheikh Moustapha Al Karim yi àndal sëñ Ahmadou Bousso mi ngi ci jataay bi moom sëñ Basiiru Bousso moom sëñ Mbàkke Kandi Bousso ak rakkam Cheikh Mahamadul Fadal busa kon diggante Mbàkke ak Bousso bi moom la Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim àndal ngir teew ci jataay bi ndax murit ba murit gi daj amul lu fi ëpp Mbàkke ak bi kon ñooñu la Cheikh Moustapha al Karim yi tànn ngir ñu taaral aw yoonam ngir mu ñëw ci jëmm ji nga xam ne si li mu ko defal dafa rëy lool kon Cheikh Moustapha nee sant na sant goo xam ne si ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem ay kilifa dong nag la àndal muy ndawi Darou Khoudoss képp ñii ñooy kilifay Darou Khoudoss ñooy sëriñ sa ñii ñooy seex sa ñi mu àndal ñëpp ay seex lañ ku ci nekk rek sa maam àndoon ak Cheikh Moustapha al Karim ba làq te ñooñu ñëpp incha allah rabbi danañ leen ko tuddal kenn par kenn. sëriñ Abou Mbakke moom Cheikh Amsatu moom Cheikh Abdoul Ahad moom ku tedd Xaadimu Rasul sëriñ Ahmadou Mbakke moom sëñ baara moom sëñ mahmadan xariloo sëriñ fàllu mbàkke moom sëñ mbàkke moom cheikh mahamadul fadal moom ku tedd xaadim rasul sëriñ xaadim mbay kayre moom sëriñ ñang mbay kayre moom sëriñ jaga mbay kayre sëriñ maam Thierno Guèye mi ngi ci jataay bi sëriñ Moustapha Guèye moom sëriñ xaadim Guèye jàngkat xasiida ku ne xam na ko mi ngi ci jataay bi bokk na ci ànd ak cheikh mahamadul moustapha sëriñ cheikh jaw sëriñ fàllu xasiida loolu it ma leeral ko ci ki woote bis bi day nitu xasida moo tax Cheikh Moustapha boole ci délégation bi nitu ñoo xam si ne xasida ci lañ yëngu suñ fàllu xasida ku ne xam na ko mu ngi nii nit defe naa kuy jàng ci xasida te xamoo ko maam la ngay jàng nekkaguñ liñ xam waaye ku yëngu ci xasida ku ne war nga ko mën a xam bokk na ca ñooña Baye Karim gay Xaadim Njaay Seyxul Xadim mbub mu ngi ci jataay bi ak Sëriñ Abdul Baaxi Mbàkke ñu ngi koy siyaare bu baax Fallu mbayitam mi ngi jataay bi ak Moustapha Seck ak Baye Daam Thiam ak sëriñ Mbacke siise ak Moussa Ñang ak Pape Saw ak Xaadim Mbay ak Bàcci Xasiida ak Serigne Khalifa Diop Serigne Basirou Serigne Cheikh Basirou mi ngi jataay bi ak sëriñ keebaa ñi ngi seex Cheikh Mahamadul Moustapha àndal te kenn ku ci nekk dalaa tànn ñu bàyyi ko biir Darou Khoudoss xolob Touba fa lañ bàyyi ko kon Cheikh Moustapha nee na ñëw na ànd ak délégation bi ànd ak mbégte moo xam ne si ne lahu bidaaya wala nihaaya am na fu mu tàmbalee amatum yam mu ngi sant itam képp koo xam ne suñu borom defal na la tawfeex nga teewee jataay bi mu ngi lay sant bu baax ndax woote nu wuyu si la du lu yomb du ku nee ko man itam comme ba mu wootee nu wuyu si ko ak sant la moom nag li ñu ko yëkkati jox ko ko teg ko ci loxoom rëy na ci moom rëy goo xam ne si ne amul lenn lu ko mën a lu sant ko kon mi ngi lay sant sant gu wér boole ko di la ñaanal lii nga xam ne si ne ci nga teg sa tànk di ci sóobu suñu borom yóbbu na ca fu kawe sa njor te jamono bu nekk saaboo boo gestoo di gis ñi nga war a àndal ci daraje ko tedd xaadim rasul mi ngi sant itam ñii mu feggoon nga xam ne ñoom lañ darajaale bis bi di ñu dal ñoo xam ne seen kàddu bi ñu ko déggee kàddu la yu rafet yu tege ci xam-xam ñu xam ñu mën a dégg Cheikh Moustapha nee na mi ngi leen sant bu baax baax a baax dafa nekk loo xam ne si ne wax ju bari daanaka mën nay waral ngay jum waaye li Cheikh Moustapha waxoon ngir nu wax ko ñun lott nañ ci mën koo tudd lépp lu ci jub itam xam ne suñu borom subhanahu wa taala la lépp lu ci dëng xam ne mata dig doomu aadama la waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xat xaama xayrul basari wada xiyaari summare ila sayta gabri kal badri wa sa anjumi xat xaama xayrul basari سمره إلى زيد قبر كالبدر وزأنجمي دفني لما قلبرم توبا يوما بذر النداء يوما بذر الغداء يوم تعارف الرجال يوم رداء والوجمين وذلك اليوم فلا لزدناء ورمان لزدخاء وسراء لكل شخص مسلم يوما به خرفا صلب من غدر خداره رب كبيرة كلمني لغزوه خير ثياب في سيد الثياب وهم عود الخباب ساء الدفاع للممي تنازل الموت ما والكل منهم سجما يبغي غير عالم بما الخمم وغدلوا من خنا حتى خبار سترى بين جبان وكم ثم نهى من السماء